mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci bésu àjjuma bi di nuyu di jaajëfal suñu mbokku presse bi di nuyu bépp sénégalais boo xam ne yaa ngi ñuy suivre tey ci waxtaan bu gàtt bi nga xam ne fas yéene nañ ko am ak yéen. ñoo woote woon waxtaan wi ñu sumb ko ci diir wu gàtt nag ngir fas yéene waxtaan ak askan wi ci lu ama am solo ndax dañoo nekk ci <clears throat> jamono joo xam ne mën nañ ne li tubaab di wax tournant mooy jamono joo xam ne la fii la Sénégal ak Afrique war a jaaree siggi ba faw waaye fii it la mën a jaare nooteel gi ñu noot euh, depuis juróom benni xarnu juróom benni siècle tey nooteel googu wéy ci lu yàgg yàgg yàgg yàgg ba suñuy doom ak suñuy sët ak suñuy sëtaat nar ko dund ci ni mu gën a jafe sax que ñun ñii dañ koy dundee waxtaan wi nag dañ koy tënk ci wenn mbir moo xam ne defe naa àjjuma tey jii la mat ab semaine gannaaw Macky Sall ak gouvernement am bañu jàllalee assemblée nationale benn dogal benn loi boo xam ne lu dangereux ñu ne woon nag nañ ci waxtaan ma biral léegi ni waxtaan wi solo si du waxtaan ci dimension technique u loi bi ndax loolu lañ ca waroon wax wax nañ ko keroog jàpp naa it boobu ba léegi avocat yi wax nañu professeur université yi wax nañu praticien droit yi wax nañu ci li jëm ci wàllu technique waaye jàpp naa ni sénégalais yu bëree bëri bëri natt nañu mbir mi wax nañ ci kon li may waxtaan ak yéen tey mooy li nga xam ne moom lañu baaxoo ñun ci suñu wàllu politique mooy di yee askan wi di xippiloo askan wi ba ñu xam lan moo nekk ci gannaaw lépp loo xam ne Macky Sall ak nguuram ñu ngi koy sumb loolay solo su waxtaan bi tey ba ca njëkk mooy kan moo nekk ci gannaaw loi bii nga xam ne makisal Sall na ko ci assemblée majorité mécanique am na ko dama bëgg xamal sénégalais yi nii Macky dañ koy defloo dañ koy binduloo dañ koy woteloo ay loi waaye léeg-léeg ña koy woteloo ak ña koy defloo seen intérêt day taseeg intérêt Macky Sall kon ay intérêt yu daje la li ma bëgg foofu mooy loi bi loi bu doy waar la ndax réewu àdduna bi yépp